lambe di tax seen baay di dox di bonde But from them when they know ñoo di ngande say Zep west african king ne Zep west african king say Zep west african king docteur ci motel bi my teew and pour yeah. xooli yéen boy bu ndaw bi reen uh. boom bi ah bu mu njaam mi dagg naa watch you seen wax ci bon ji lépp dégg make mais i am not done overdenken, boy, we denken aan de wet is en pelegi sekken aan. Maar tel je geel, we bus betakken aan. En sta de coin, we nyappen en kon ook om tel zo coin, de vast voor never so. Tek botar, we rap, bujar, we sapsi kar, be flow, bubar, we gor, bujar, we takken mis, we rispi. Get the wet, the jappie, mooi, we rispi. Wil mo boy, like any MC, eh? Nyako fai, de flow, new copy, eh? Son nu nanchi, seni duli, eh? Ben de zombie, dongo domine. Rap, we best, we mango, tango boy. Bang me burger, mangi, them the boy. Some job, bukare, tana, hold it toy. Hold it toy. ñoom ñëpp topp ma di mbay ngay fay ak temps song ma rap day fay moo tax ma romp leen defaguma dara ñoom ñëpp topp ma di mbay ngay fay ak temps song ma rap day fay moo tax ma romp leen tey maa jaay te du fi lambe ndax maay seen buur di ji bi ndambe kii tax seen baay di dox di bonde ba fu mu dem mën di ñoo di ngande say sepp west african king del sepp west african king say sepp west african tey maa jaay te du fi lambe But from them when the Say West African King West African King Say the West African King yeah, yeah, gang gang. big remercier yow soow bi matawul tey baali saaw bi kenn seen team lights lay soppi góor jigéen booy get on my nga ak sa gang même doo doon saaw de doo jigéen belle fille la ma jëde sa 20h 21h c'est le Talrec Show avec Talrec sur Vibe Radio tax a kuy sant yàlla faa nga sant nit man Serigne Touba moo sama njiit hmm. te ku dul moom ma tax a gëmuma affaire satanique ak laaxu rabbi kooko ma validé def na ma jullit ma joddu doon murit vere vere dama téere li bama bama bama dong yow bu leen ñu jéem nuñ ma tee dem fii ma jëm bu leen ñu jéem nuñ ma tee dem fii ma jëm I don't care nigga yow I don't care non ku jàppi eh def lu ma ku ràppi sans a eh sans ku eh eh eh du kenn ci même sama ennemi mënuñ ma tere ma nangu si koron bi teral si famille bi bégal si fans yi billaaxi wallaaxi jàppee du paniqué même soo mu reculer reculer reculer fajalaas bëgguñu feeg Wat heb ik in zijn nek? Yeah. Mag maar yeah. lopen op mijn def. Maar ik op mijn def. Laat me zeggen naar de kef. Valen mijn panden begees. Als ze maar ragal bunjoen. Deze dingen, deze dingen. Prisse nigga, deze dingen. Wo ha ha ha. Wo ha ha ha. Wo ha ha ha. Wo ha ha ha. Fight on you. c'est pas fini. Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Web Radio Tu veux savoir plus sur tes stars préférées Ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi.